gannaaw ba ñu leen nuyoo yéen ñu ñu topp suñu site bii di Buzz SN dañu ñëwaat ak yéen ci seen écho du jour dañu koy dooree ak lii di Serigne Mara Niass yi nga xamante ne si yëkkati na ko jëmee ko ci ñi nga xamante ne si ah, ñoom la waa ah, OFNAC nag génnee ci rapport yi nga xamante ne si kon ah, ñoom la ñu jàpp nag nee na nag li nga xamante ne si moo di rapport yooyee nag bis bu génnee li nga xamante ne si nag moo di xaalis boobe daal na bañ a yem ci ay chiffres waaye nag chiffres tamit bu génnee tamit loxo dana dem. gémmiñ ndax bariwaay goo xamante ne si kon eh, bari na ko eh, ginnaaw bi nga xamante ne si rapport yooyu daal kon dana génn moom mi nga xam moo di eh, Mara Niass nag moo di ci li ci gën a am solo daal moo di daal xaalis bi génn nag tax bu génnee ko waaye nag ñi nga xamante ne si rapport jàpp na leen daal nit ñi daal dañuy dem kaso moom nag suñ Mara Niass wax na ci nee na li ma gis ci ñoom kaso ci gën a sedd waaye nag li ma gis ci ñoom daal moo di ay bàmmeel maanaam nag bu ñu sàggoon ñoom ñëpp ñu bari ñoom daal danañu faatu moom nag bi ma ko waxee daal euh, foofee ci nga xam ne moo di euh, Sénégal set nag euh, moom bi di Serigne Mara Niass nee daal li nga xamante ne si kon moo di rapport bu génne daal chiffre daal bu génnee danañu maanaam loxo daal dana dana dem gémmiñ ndax kat bari waaye goo xamante ne si dana ko bari nag xaalis bi nag ñëpp nag dana dana génn nag ñëpp teg seen bët Sénégalais yëpp teg seen bët xam ne xaalis bii nag euh, seen xaalis la te nag euh, dina ci jaare naataange nag ba faw euh, ginnaaw bi nga xamante ne wax na loolu tamit nee na tamit dana gis na moodu moodi xaalis bi nga xamante ne si daal sàccoon nañ ko lubal ko nag ci li nga xamante ne si moo di ci réew mi moom mi nga xam moo di Mara nag ba tey wax ci li nga xamante ah, eh, ne si ñi nga xamante ne daal nga ñoo di le yi ñoom ba tey eh, képp koo xamante eh, ah, ne ah, moo di président daal nee na ko leen xuri moom dana la gàjji dana la matt nag rëkk la dóor la nag weq dem yoonam nag moom mi nga xam ne a a mooy ak faatu gu bare bare bare bare koo xamante ne si daal mi ngi eh, dëgmal eh, ci eh, réew moom mi nag ginnaaw yi nga xamante ne ñoo di bëgg opposé wu ci foofee nga xamante ni si daal euh, moo di contrecarré ñi yor euh, pouvoir bi nag nee nañu daal li gën ñoom daal moo di euh, ñu dem foofee nga xamante ne si daal moo di ca pouvoir bi jéem a ànd ak ñoom lëkkaloog ñoom liggéey ngir réew naat waaye nag képp koo xamante ni si daal bëgg naa bëgg naa opposé wu ak ñoom daal li gën a sedd ci moo di euh, faatu ba tey li nga xamante si moo di toog muy dox googee nag laaj euh, nga xamante si daal moo di toog muy dox moom euh, waxuñu nga xamante si dañuy toog di fayeeku te liggéeyun ñëpp nag xam nañ leen moom mi nag kon daal di Oustaz Modou Fall li nga xamante si wax na ko nag na génn tuub ko nag nag te xam ne moom daal kàddu yooyu moom yoonam nekku ca boolewuñ ko ci ndax moom moom it nekk ci moom lañ ko jëmee loolu nag njoomte goo xamante xamante ne si ndax kat toog muy dox googe moom yoram nekku ca ndax kat moom au euh, di Serigne Mara kàddu yoo xamante ne ba tey yëkkati na ko jëme ko ci li nga xamante ne euh, moo di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Diakhar Faye di son excellence président de république du Sénégal nag nee na euh, daal dana neex ba sénégalais yi nag bu ñu bëggoon a yem ci deuxième mandat sax euh, mën nañ leen ñaanaat ñu yokkaat li nga xamante ne si kon euh, na ko bi nga xamante ne si mooy élection yooyu daal moo ko cher mag ba topp ko ci li nga xamante si kon moo di li nga xamante ne si moo di rapport yi bu ñu ko génneen nag moo bi di Mame Mbaye daal li nga xamante ne si kon moo di a sedd ci li nga nga xamante ne si kon moo di ci coowal li moo di rapport yooyu nga di ba tey Jumaay Fay nag nee moom dañ ko euh, kii euh, a li nga xamante ne si daal mooy taal li euh, ko walaxaat nag mu a raw yóbbu la nga xamante ne sàcc na ko nag moom nag bi ko waxee nag ah, kii ndax nga xam sàcc nañ daal kon dañu war a bàyyi ñu dem seen ak la sàcc waaye waruñu leen eh, jàpp ah, di leen indi li nga xamante ne di leen laajal li nga xam ne mënuñu jël ci réew mi loolu nag la yee ah, te fitna joojee nag koy eh, koy gëmmal rek moo moo ëpp moo ëpp njariñ ki nga xamante ne si moo koy yee ba tax na daal ah, moom bi di amee Susan daal kon mi ngi wane ak mbañal gu métti métti métti jëme ci ah, kii di nga xamante ne si ah, ko doo doon nañ ko lubal ci réewam Sénégal ba tax na nag mu nar euh, mu nar kon euh, li nga xam ne défendre boppam euh, ngir nag ñu bañ ko audit ci yooyee nga xamante ne si moo di mbir yooyee daal moom mi nga ne si kon daal moo di Ameth Suzanne ñu tëjee ko ak ki ne si moo di artiste sénégalais bi di wuyoo ci Alioune Mbaye ginnaaw bi nga xamante ne si nag toog na lu yàgg kenn dégg ko ci li nga xamante ne si moo di ci musique sénégalais bi nag mu mel ne kon information nag jot nañu ko boo xamante ne si nag moom triste na lool jëmee ko ci moom mi nga xamante ne si moo di waykatub sénégalais bi boo xamante ne si nag lu ñeel këram la nag ñeneen ñu daal Euh, fan yi daal di tegale di tàkk rek tey bu bu bi tàkk bu ñu xëyee beneen côté ba tàkk nag li loo xamante ne si kon daal euh, moo ko daal moom euh, xam lu ko taal ñu bari nag nee nañu lii ci mën na ko daal lool ci këram gi nga xamante ne dëkk nag di tàkk niki fan yi nag bu tàkkee tey ji ci côté bi nag bu xëyee suba faneen tàkkat mu mel ne daal kon li ko daal daal rawatina moom mi nga xamante moo di Alioune Mbaye Nder di ñaanal suñu borom taxaw ko uh, te sàmm ko ak njabootam kon yéen ñi nga xamante ne si yéen ñu topp suñu site bii di Buzz SN ni leen koy faral di waxee bu leen fàtte partager TGM te abonné dana yokk doole pass bi waaye dana tax lépp loo xamante ne si am na ci réew mi ak bitim réew ngeen mën cee jot